soo daan lu ngeen gëm bay gaaral sanga soo daan mooy bay wa axtami bi ximaaka ku ziyaar sa xol dootul wow day tooy wa cay ku yaakaar fi yow du sooy ba delloo meram aw ci jàmmalaayi ngir moo di teenu bi yàlla ci képp kuy sàkku ngëneel fa yàlla kuy rotte ànd ak baag na jublu foofa baag baa di teggin yamu yàndal foofa seetal mbiram ci aw turam bul fàtte aafiyatal ilaahi bul werante mooy jàmm yàlla boo bëggee am jàmm ak xéewal ak tuyaaba booleeg mbég ma jalla no baay lay sanga feeñ na ilaala walaay tedde nga yonen be baay lay sango yaay borom jamano jalle no baay lay sanga feeñ na mam li maamu lay walaay tedde nga yonen be borom jamano Baay Laay sango yaay borom jamono jàlle nu Baay Laay sanga feeñ maam li maamu laay walaay te danga yonen be jamono bàyyi laay sango yaay borom jamono jàlle nu bàyyi laay sanga feeñ na maam li laay walaay te denga yonen be jamono baay laay sango yaay borom jamono jàlle nu baay laay sanga feeñ na yonen baa nga yof walaay te yonen be baay laay sango limaamu kumbandooy waa diwaan bi ya jamono baay laay limaamu kumbandooy waa diwaan bi yo lanu woolooy laala walaay te denga yonen Abdoulayo yàgga daan gi daan tey daan tey sët ci baay laay tey sët ci baay laay Abdoulaye Thiaw Serif Abdoy ki ma way tey ma wayil Abdoulaye Thiaw Serif Abdoy ki ma xam tey ma wayila yaan Abdoulaye Casamance la fa nekkoon di ruuy jàmbaar Serif rungaleen jox ko sëñ Abdoulaye Thiaw ana bawal la fa nekkoon di ruuy jàmbaar Serif bi yaa dem Abdoulaye Thiaw wana waa loolu la fa nekkoon diru bi yaa dem rungaleen jox ko sëñ Abdoulaye Thiaw am ngay manoore doomi réew Abdoulaye Thiaw am ngay maqaama Abdoulaye am na xam-xam bu diine moo di marjaan abo yàgga daan gi daa daan tey saxoo daan tey sët ci bàyyi laay gi yaa abdalaay dalalaati magu caw sa baay xoolal maratiba fi rijaali nga xam min al wusuuli wa min سفوي الإرادات وخلني موي سلمون إلى السلامة من ويلات دائن وخل من كل يافات باي عبد الله تشاو باي عبد الله تشاو شريعة الحق لا تدليل دون أمود mooy sab asaasi tabaax shaabin wa shaabaati bay abdoulaye thiaw nga xam kajoor kazamas suuf sangi sede seede sa jëf di bek ci mom dina mo tilka ziyarati fa mawti ul khadamil axiyaari tiire yamul xoolal ma gis ustaka nga am diraayaati magu caw sabay dem na kon gaay nan ka di jooy ci roy jikkoom ya mu am li fa mu toog muy am bishaaraati lillahi darruka ya abdullahi bëxin ay abdullahi bëxin fallaahu yujzika fii tilkal muhimmaati bay abdullahi dem na te lii du fay ndax njaboot gi jox nga leen ka bu wi leer bilaa shakkin wala raybaati magu caw sa raaxabtahum xabla alxiyaabi yaa sharif fallaahu yusniduhum fi kulli xaalaati bushra almuhibbiina ni bàyyi laa ظن العين لكنه لم يئس ننميت خدعاتي لأوين لجين برام بناك دنيب كن أهل الله جبلين شمس الهدايات باي عبد الله عباد بذكر الله قد جبلوا لمبير مناخ نخ نوروي خير البرياتي نوي جيم جمال دعوة إمام سيدنا بين الأنام نيغم شمس الهدايات لله درك يا عبد الله شريف عبد الله دمنا لله درك يا عبد الله باي عبد الله بخن فلا يصدق فيه tilka al muhimmaati iblis du dañ du nu xeex fekk noo ngi jéem lu nu man ci jaamu yàlla ala nahjil hidaayati bay abdoulaye caw dem na kon yaa rabbi yaa samadu aaral tariixa limaam te soom njaboot gi ilaa nahjil hidaayati ma alihi wa kazal ashaabi dolli ngërëm baay Abdoulaye baay Abdoulaye Thiaw baay Abdoulaye na jot kullal baay Abdoulaye na jot kullal bishaaraati sa baay na jot kullal atir tawal waa bila rahmaati fii di denca soppeb jullit ñépp min duuni ray baati mu doon waame buy bégloo ku sopp jëmam doon buy gi ndekay fii kulli xaalaati waa ziyaar baa ngoog laay maxtaar Alassane <laughs> yow yow yaay maam li maam laay baay laay yonnen be laay Mamadu Mustafa yow la nu yaakaar fa nu jëm yow yaay maam li maam laay baay laay yonnen be baay laay Mamadu Mustafa yow la nu yaakaar fa nu jëm yow yaay maam li maam laay bay laaye yonnen be Mamadu Musa yow la nu yaakaar fa nu jëm yow yaay maam li maamu laay bay laay Mamadu Mustafa yow la nu yaakaar maamu laay bàyyi laay yónneen bi bàyyi laay Muhammadu Mustafa yow la nu yaakaar fa nu jëm yow yaay maam ni maamu laay bàyyi laay yónneen bi bàyyi laay ajiboo daaya laay la fi njiin woote wuyu leen gëm nanu maam li maamu laay bàyyi laay yónneen bi waa jërëjëf ki ñu miinoon ci jotaay moo nu naandal di nu naandal leeri maam li maamu laay siggileen nu wër axlu laay ngir da duug Cherif mat na moo matal mission bi roy na maam li maamu laay aaxin aaxin war na noo jooy Abdoulaye moo nu nandal zikrullah la ilaha illallah soppe baay ma njoon ku kaway am ngërëm fa jannate bismillahi may bëgga way Abdoulahi doomi saa soppe baay ma njoon ku ko way am ngërëm fa jànnate général bi nee na yaa ngi yaa ñu defar ba nu mat ci bépp zamaan Abdoulahi yaay ki fi sax xol yi sax ci zakrate général bi nee xale yaa ngi yaa ñu defar wax xale yaa ngi yaa ñu defar ba nu mat ci bépp zamaan Abdoulahi yaay ki fi sax xol yi sax ci sakrate Seydi Abdoulahi jërëjëf yaa nu wan hidaayate Seydi Abdoulahi jërëjëf laay walaay Seydi Abdoulaye jërëjëf yaa wan hidaayate waaw bi ne Seydi Abdoulaye jërëjëf Seydi Abdoulaye jërëjëf Seydi Abdoulaye jërëjëf jërëjëf ci bépp domaine Abdoulaye yaay ki nu yéem yaa wan hidaayate jërëjëf bilaay walaay Abdoulaye yaay ki nu yéem yaa wan hidaayate général bi ne xale yaa ngi yaa ñu defar xale yaa ngi ya wax xale yaa ngi ya magu sa xale yaa ngi moo defar ba mad ci bépp zaman Abdoulahi yaay ki fi sax xol yi sax ci sakrate billaay walaay su ma ma njoon kay sadiq ci baay abdoulaay duudulaaxi yaa di min zawil karamate suma jaadu du ma njoon suma jaaxadu du ma njoon kay sadiq ci baay abdoulaay duudulaaxi yaa di min zawil karamate ki lu tax ma naan du samaas ki lu tax ma naan du samaas ay mayam di géej Abdoulaye roowalaay isaa di sa baay baay Ablaay du maas mindeef baay Ablaay du maas ku way am ngërëm fa jànnate waa jaageen jëf laay Maxtaar xam naa bu ñu toppee yëf yi daanaka dañuy jël dañuy jël waxtu wi ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax Alassane ak seeni di di tuub ci kàddu yi vraiment di jégalu bu baax a baax di leen masawu coona gis nañ ni ba weer wi taroo ba léegi toogoo leen benn yoon yéen a ngi dawal seen maam ci bëccëg guddi muy naaj yëpp yéen a ngi ci tool bi kon ñu ngi leen di masawu bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal sunu borom ci seen barkeeb maam yan wi ngeen yanu yàlla na ko sunu borom oyofal te yàlla na doon xéewal bu wàcce ci njaboot gi yëpp. tey nag daanaka nañ ko daan defetee rek moom lañ ko de nañ ko defet ndaxte xëy na sax rax na ndax man maa ngi ci <laughs> ànd ak ànd ak Youssou Laye Makhtar tamit ànd ak Khalifa di ñu nekk sunuy mag yu baax ak ak ak sunu ustaas ustaas Aliou moom mi nga xamante ne moo yor waxtaan wi ci ci keppaar gi waaye waaye gëj naa dugg xëy na bu paree tamit nga <laughs> nga dal ko <laughs> waaye daal lépp santale rek ndax lépp ajaajoor la ndax ñun ñu ñu dañoo nekk fële waaye yàlla dogal na am amuñu jot waaye moom du tàyyi ak ñi mu àndal chaque jour mu ngi soññee di xool euh, lu groupe bi di def ak lu ñu deful rawatina lu jëm ci liggéeyal Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam kon Adja Dior amuñu fayam lii muy liggéey ñun ñi la ko liggéeyal parce que groupe bi boo xoolee ci ñun ñi la démarré woon dañ ko defoon def boo xamante ne ñu ñu nekk Europe ñu xamante tey jii xalifa euh, moom France la ne mais yàlla dafa dogal man ak moom ñi nga xamante ci groupe bi yuusu Espagne la ne ñoo bokk fi ñu ne mais xamante woon nañ avant keneen ak keneen ak keneen ak keneen kon ñun noonu lañ ko def mu nekk entre nous xamante ne biir Europe bi rek lay kii waaye yàlla di dogal di dogal buy fi yaatu ëppi loxo léegi nag ñoom waa waa Sénégal dugg ci waa Maroc dugg ci ba États-Unis ba fële nu mu si Brésil Chine ñoom ñëpp ngi fi. xam nga mu doon loo xamante ni ñu ne lii kat kon jaratul léegi ñu koy téye nañu ko ubbi bu ko defee ñëpp man cee xéewlu ñëpp mën cee bokk mu nekk loo xamante dañu koy def mu nekk liggéey Seydina Limaamu te bañ ko defee tamit boobu léegi rëccuñ ci benn yoon ndaxte yàlla dogal na am na ay sëyuñ ci takk am na am na ay ay tout temps que si juddu ba Yuusuf mi may na ci doomam ah doomu Badulaay loolu lépp nekk ci loo xamante ne ci keppaar gi la nekk mu nekk loo xamante ne lu am solo la kon dañu koy sante yàlla bu baax a baax a baax di di ñaanal Adja bu baax a baax a baax di sàkku sëriñ bi yow nga ñaanal ñu ko bu baax te it nga gën a soññiwaat mbooloo mi xam naa ne bu ñu gisee lii boo gisee sax ñu koy filmer juste rek mbir mbooloo moo xaw a doy waaw ndaxte ku ci nekk da ngaa àll di am looy participer waaye bu bu ñu sañoon rek dañ koy def discrètement waaye nag loo xamante ni ñëpp ko bokk nag dafa war a fës waaye nag ñu ngi ñu ngi sàkku ci yow si ñaan boo euh, boo jëlee kaddu nga soññalaat ñu mbooloo mi bu ko defee ñoom ñu xam ne ñun lii ñuy def duy caaxaan loo xamante ne yaa ngi koy def depuis 2016 ba léegi nga xam ba ba tey ji xam nga ne du caaxaan yaakaar naa su ma juumulee groupe bu Keppaar Seydina Limaam moo nekk premier groupe ci ahlullaahi su ma juumulee bu fekkee damaa jum na ngeen wax ma waaw moo waaw virtuel waaw ñan bu daan am ñu koy def xalifaa ngi nii ah, badul kiiwa ngi nii nu mu tëdd yuusoo ngi nii duñ ma bàyyi ma fen kon loolu bu yàlla dogalee ba léegi loolu muy sax kon ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiite yéen yàlla dogal ngeen nekk si bopp bi war na ci yéen ngeen soo ñëwaat mbooloo mi bu ko defee ñoom ñëpp ñu mën a ñëwaat defaat massif gën a jàppaat ci mbir mi kon xam naa damay teeral samay kàddu bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax a baax ndax gëjoon naa laa gis yàgg na sa sopp kooru mbëri ka ya waaye tey jii bu ma ñëwee tey nii sa raw du maam fekkaat la fi kon yëpp sant la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax xëy na ma jox yuusu kàddu gi sang bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen wax rek ni lépp lu ñu doon wax naan toujours lu dul diine duy teggin nu yare nu ko fii ci ci fii nii ci Sénégal ni dox dem ci Europe bi continuer di dundal lan doon dundal fii ba fépp fu nu mënti dem nag laay-laay bi moom ñëpp dañ koy xam ci ñun ndax mbindeef du taxaw suñu kanam ne la sant bi sax nga naan kaay ay jóob si laak njaga kii yooyu sant bi Laye Mamadou maxtar bu ko doyee mu jël bu ko doyul moo xam mais Laye Mamadou Makhtar fu nu dem fu ne day jolli sikar si itamit macha allah fu nu dem dañuy sikar yàlla def nag nu ubbi groupe bi di ko wéttali konte parce que groupe bi ci àdduna bi yëpp nag daanaka mën naa taxaw ne am nañ fa membre bu ñu fa représenté lan la ñuy def dañuy toog di si sikar daan yëkkati sikar si nag bu baax a baax muy jolli kenn ku ci nek nak da ngay dox sax yenn caay ci ci mbeddu Europe bi wala fu mu meunti doon da ngay jekki jekki yëkkati say téléphone di sikar ci kaw peu près envoyer ci bir groupe bi ñepp di dégg ñepp di gis nëbbuñu ci kenn ci lenn nak ndax lan bu fekkee ne ni ki tox cigarettam mooy gàddu cigarettam ci diggu mbedd bi di ko ci di def lu ko neex kon massacrement ñun ñi di tuddu turu yalla war ko wara am fit nak yobbu ko fu mu fu ko bëgg yobbu ci loolu daal la nekk di ci dund ba ci jamono ji nu toll bu nee nag appel la ngiy jot nu ni kat diine ji am na lu mu soxla kenn ku ci nekk dajale sa dërëm lu mu mënte am nu jël ko def ko ci diine ji ndaxte ku deful si diine yi Seydina Limaamu itam di nga def ci diine yi na kon nag lan war a def ci si euh, si diine Iblis bi nu gàdd ko wut si fii Tiyaaba kon nag ñu ngi gërëm di sant ñëpp lenn nag lanu bëgg nga ñaanalaatal nu ko. a ah, nu farluwaat ñu nit ci suñuy mbir parce que toll nañu ci jamono ji nga xamante ni xëy na dañuy daw ngir mbiru jam ngir mbiru jamono mais tamit war nañ ci boolewaat suñu mbiru diine ji itamit comme nanu ko doon dundale ba foo toll ci fu mu mënti doon du dégg nu la naan keppaar gi keppaar gi keppaar gi cet li nga xamante ni moo nu topp ba ci jamono jii nu kii na loolu daal la ñuy ñaan nga defal nu ci ñaan bu baax a baax ndax nit ñi dellusiwaat kon jaf ma baña guddal ma jox khalifa mu barkal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ah sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar kaddu ñu yëkëti sax wax deug yalla ñu ngi ci tuup ah ndax señ Mor mi bu yëkkatee kaddu rek mo nañ ko yamalé fofu jot amul waye nak ala kulli ñu sanni ci ay kaddu waye nak ñu ngi jéggul bax ah sant yalla lii nga xamante ne moom la ñu exporté yóbbu ko bitim réew kenn waralu ko lu dul sa maam Seydina Muhammad alayhi salaatu ci kattanu yàlla mu delloo si ko def ko mu doon Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam loolu nag moom la ñu représenté bitim réew nekk ay ambassadeur foofu groupe bii nga xamante ne mooy keppaaru Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam mooy groupe virtuel bi njëkk am amoon ay projets yu ci jugoon benn bi général bi mu ñëwee tegoon nañ ko sur la table ndem si yàlla Seydi Kane loolu moo doon jëmmal 90 ans yi nga xamante ne Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ñëwoon na ko tukki bi moomoon Vincennes pour jëmmal ko àdduna bi xam ko yàlla nag bi ñu ci tolloo war ko def Covid bi ñëw na waaye ñu ngi ñaan pour def centenaire centenaire bi incha allah 2031 euh, bi ñu jëm di ñaan yàlla yóbbu ci jàmm ndax solution li solutionné àdduna yëpp mu ngi fii xam nañu ko te loolu la ñuy jëmmal saa su ne loolu nag dañu bëgg nga ñaanalaat ci yàlla yalla may ñu yegg seeg jàmm ndax siwal wote bi moy yité groupe bi moy mm. tax né motax ñu taxaway bi ñu am yépp donc xamna fofu lañu yamalé ñuy kaddu yi rek baña guddal di wat encore une fois ci kaddu yi di len ñaanal jamm taxaway bi ah, soxna kure, yëkk na fi ay kaddu yu toy xol ak euh, sunu si karkat balé ci ginaaw ndax sa bay wax deug yalla cheikh abdullah dafa nek ko xamantene ne du denc xol yi ndax lepp luñu taxawé ni moma mooma nak yàlla dogal na ñun suñu bopp sa maam wan ñu kan mooy sa baay waaw ñun dañ koo xam bu baax a baax a baax te xam naa ne laayeen yu bari réere nañu ko ndax buñ ko xamoon tey taxawaay dina am beneen beneen xeer taxawaay boo xamante ne moom la naa laayeen war taxawee. jërëjëf xanaa ma jox oustaz rek moom mi nga xamante ne moom moo yor kàddu euh, keppaar gi ci wàllu diine ji ah, mu mu sànni ci rek après jox nday yor bu ko defee sëriñ bi nga. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. laay Mamadou laay Maxtaar laay Saalihu laay Jabel sëñ bi euh, ñu ngi lay nuyu di jaarale sunu nuyoo ak sunu ziyaare di ko teg sa loxo nga jottaloon ne que sa xalifa ba ak mboolem ba euh, ahlu bayti bi yëpp kun ko si jox rek euh, mel na ni jox nañ ko yaa rasulullahi di sidina imaamu malaahi almahdi alayhi salaatu wasalaam xam naa kàddu yi sax jarul woon ma koy yëkkati parce que ñi matale lañ ñëpp te ëllulaay fuñ dajé zikrullahi jóg fa rek xol ya naat rek bu boba xol yi day sedd te comme la baye Seydou ciow da non nan xol bu sedd doy ak ñaan lay ma tar doy na ak ñaan kon li ban ka day def ba légui ni ak yéwé na leen si gis euh, ta sa mam lam waxon sa khutba ba rek mo ci am solo ak diinu an nasiha diine laayente bir la moy ku nekk di conseil sa morom ci lo xamantene day jariñ sa morom at di moytandiku sa morom si lo xamanteni loranga la at lo xamanteni eh, ay turukh la yo xamanteni dafa jëm ci yoonu iblis loolu la sayyidina imam mahdi alayhi salatu wassalam da eh, jangal sa khutba ba te mom moom la ñuy jéem a répété saa su la a répété ndaam sax ñun ay ndongalan yu bàyyi ko si eh, daaray saxir xeyna sax suñu kaddu warul juk warul juk waye dañuy rek di nafarantu Euh, di fàttalikonte ak di wéttalikonte ñoom ñii sax euh, ku si nekk la nga xam sa àllube moo ëpp sama àllube fuuf mais joxe ma rek a joxe marta ba rek moo tax ñu jël baat bi di ma ko jox mais ñoom ñii ñëpp liñ fi wax rek buñ ko tënkee rek doy na sëkk laay lay laay Mamadou xam li si des kay moom xanaa euh, jàkkaarloog situ yaa rasulullahi dafa nekk loo xamante ni da fatihu gu metti moo si nekk fàttali bu meek moo si nekk comme yaa rasulillahi leen tiim nii tout près tey ñu ko daan sori lool nag nekk sa ay réew yu sori di ko ñaan mu nuy nungul kon buñ ko jigéen ñee buñ ko ñaanee te jige ko fa lan gën a yaakaare sax ni ñaan ga mu gëj nu euh, nungooti ndaxte euh, xut bu zamaan ba la mu doon wax benn wàllu yàlla nekkoon sa réew Iran mu sori woon lool da daan sori lool xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu weexee démb daan ko ziyaare daan ko ñaan di wéetal yàlla di ñaan si yonente bi sallallahu alayhi yàlla di ko fajal ay aajoom benn jour mu ñëw a ñëw ba jigee màkk ñëw ba ziyaar si medinatul war si xabru yonente bi mu ne ko yonente bi day yow mii tëdd fii doon naa la ñaan démb nekkoon si ay réew yu sori la ñaan nga may nungu eh, si sa ba yàlla di nungu sama ñaan tey lenn rek laa bëgg yaa rasulullahi maa ngi nii tiim sab xabru lenn rek laa bëgg sa loxo bu tedd bii nga ko bu xeet génn ko ma fóon ko yaa rasulullahi loolu rek laa bëgg a tey fi ñu koy waxee rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di Seydina Muhammad ba mu weexee démb na bu xeet loxo bi si xabroom bi daal koy génn ba mu koy wax Abdou Khadir Jilaani feddali na wax jooju nee na wàllu yàlla boobu dey Euh, kii kéemaan googu ba mu ba mu koy def nee na moom mu ngi woon ci ginnaawam fekke ka fekke jataay boobu wàllu yàlla dafa kotta loxo yaa rasulullahi bi rek sallallahu alayhi wa sallam daa koy fóon daal di tuur ay ranxoojam naka lii rek laa bëggoon da sala tooma dara kon boog yow surtout yaa rasulullahi nga euh, euh, suñu soxla yépp mu ngi noonu sa loxo nga waxat sa maam yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. kon sëriñ bi xam naa ñu bañ laa téye rek xam naa da ngaa nekk ci ay yitte ñu jox Adja Dior ah, bu ko defee mu mu tëj lépp rek incha allahu rabbi ñu ngi ñu ngi ñu ngi tuubaat bu baax a baax a baax. alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla war na jaam tey moom dañoo sant bu baax a baax a baax a baax macha allah ndax eh, du ma ne jotaay yi fi jaar yëpp. Eh, kiiwul mais jotaay bii moom ren moom dafa ala doome macha allah di nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant di nuyu suñu suñu suñu sang bi magu vraiment ñaari at yëpp moo ñu recevoir te vraiment si lay gën a neex macha allah di nuyu Baye Aatu moom it nee naa groupe Bass moom yéenay suñu partenaire partenaire waa Kepa ji te incha allah rabbi tant que ñoo ngi dund rek du mës a dañ te ñuy sàkku ngeen ñaanal ñu baax baax mag ñi waxee rek. dong lañu ñu soxla donc foog naa ni waroon naa weesu fii yëpp nag groupe bi waroon na génne ay millions di ko teg si taabal bi ne lii ñoom ñoo ko joxe mais xam naa ne rek un jour viendra mu am incha allah rabbi loolu ñoo ngi koy ñaan bu baax a baax yàlla nañu ko maam Baye lay defaral euh, ñaanal ko suñu borom mu defal ñu ko. dëgg yàlla am nañu yéene gi dëgg yàlla keppaar gi moom am na yéene gi lool lool lool loolu sax te nag naa ne yàlla moom day fay yéene yàlla na ko yàlla mottali ba lépp rek. suñu borom yombalal nañ ko def vraiment am nañ yéene xam naa kàddu moom foofu laa koy yamale rek di gërëm ñëpp nag di gërëm moor mi nga xamante ne tamit mooy président keppaar gi mu jox ma ko te contrôlé wul amul kenn kuy contrôlé ci keppaar gi amul kenn ñëpp dañoo jël wóolu ma jox ma dëgg yàlla ma leen si sant bu baax te yàlla bu yàlla tas yaakaar yaakaar bi ñu ma jox yàlla bu ko suñu borom bi tas waaw maa ngi ñaanal ñëpp nag di gërëm ñëpp ñëpp wa kon niñ ko daan def chaque année rek incha allah rabi yàlla tam ren ñu defaat lu ñu daan def rek ñaan nañ yàlla nag année bii di ñëw mu gën a allah rabi ba tax na keppaar gi képp kuy membre nekk si keppaar gi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp sen participation ngi nii ku joxe ak ku joxe ñëpp seen participation ngi nii parce que ñëpp boole ba tax na daal dajalewaat nañu une somme de francs ko euh, groupe suñu partenaire officiel incha allah lépp lu ñu amul lu ñu deful si yéen rek dañ kaa amul yàlla ñoo ngi sàkk ngeen ñaanal ñu nag bu baax a baax ba lépp déwénee ñu romb fii incha allah rabbi waaw si barke Baye Laay déwénee ñu romb fii incha allah bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaan rajim laa hawla wala quwwata illa billahi eh, kon avant ñuy jox kilifa gi muy ñaan ñu sànni si ay kàddu yu seede rek di am kontante lool di amaat kontante sa je ci mbir mi ndax ni ngeen ko waxee 2016 ba léegi mu ngi am ay at te daan naa wax ma ne par exemple ni ngeen di jógee dajale seen mbir fekk sañu fi su doon ni par exemple li fi ay daayira ak ay association defe nañu ni kon wallaahi suñu coono wàññeeku lool lool lool lool e, yàlla gis na Mame Mbaye Laye gëmmul ne la waleet gis na yàlla mi nga xam moo tax ngeen def amna fay yalla na len yalla fay waye na len leer ne suñu xol sedd ci li lol. le dixième ou moins du dixième bu ngeen ko indi won sax ñewin bi ak joxeen bi ak yene ji matal na ñaan bañu tambalé comme ay doyen ça fait 40 ans 40 ans yu yu wow yu sax mun naa wax ne lu ñu fi tuur suñu ñax te yaakaar ci rek euh, euh, yiw yàlla nañ ko yàlla boole ak yéen barkeb Baye lay ormay roow laay Isa na xolu Baye Seydi Sow too seddoon bu mu ñaanal ñu Baye Ran Kazalik Baye Ablaye waxi noppi ba si Baye Ousseynou ak seeni i rakk yëpp loolu yëpp yàlla nañ ko yàlla boole yàlla na mel ni rek par exemple ñiy jëkk seqib tànk di liggéey fii yéen ànd ak ñoom sa njëlbeen nga te ànd ak ñoom ba sa mujj ga na yàlla fay leen. yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla suturaal leen barke Baye Laay Ormay Roolaay Isa kii nag du ma leen ko présenté te xam ngeen ne mooy magu waaye nag ma xamal leen ne ne démb ndeyjoor bu may woo boobu baay ñu na ngi toog fii pour bëggoon kaa poñi moo tax ma ne kaa ndeyjoor woote na de suba si bu ñuy kiwee ba pare la ñuy ñëw mu ne ah, bu neexee yàlla bu ma mënee ñëw rek ñëw waaye nag ba mu ne waaye nag nous avons compris parce que kii la ñu booleel waxuñu ko ne magum kër dayloo naka mu boole ka ak ñi te def naa kii kii daje nañoo ak moom Bargny dimanche rek daje ba nga xamee bi pratiquement c'était un pur hasard waaye hasard bu rafet donc fa nga xamee ne fii bay ñin jotam mayoon na ko mu fay dem ñu daan ko gunge daf ñu boole kii bu ñu amee kii rek mel na ni moom mu ngi fi waaw bay ñin moomu nag ñun dañ koy ñaanal bu ngeen génn bu ngeen génnee gestu nag wee tëdd fii gis fi nak wu ko wu ko ëpp dinay jafé lool te chaque année mu défal ñu di mom bay Ndiéne xaarul ñun ñu jox ko waye mom moy jënd nak indi té bu togon fi par exemple ñu nekk fi 300 personnes par exemple yu tew mën na jënd boisson pour ñëpp naan kon nak ak amam ak wéram ak léppam daanaka ñun moy suñu wër moy suñu am moy suñu lepp ñu ko koy ñaanal di ko ñaanal nak ki mu ñu bolel di ñaanal yalla na yalla yagal taxawayam daaral ka barkeb Baay Laay ormay Roolaay Issa kii mooy Libaas Guèye Petit Guèye daayira yi ñu njëkk a formé ñoom la ba groupe bâche eh, juddoo nag moom la te moom moo jëkk a bâche yi groupe bâche moom mii ak Assane ak ñoom Baye ñiit def naa ñun ñu door cee topp te loolu def naa 79 la woon def naa 78 79 bi appel amee nag ak loolu par exemple ñun ñu dal di cee tibb kon daal li ñuy wax nee na xol bu sedd day nak ñaan suñu xol sedd na lool kon nag ñaanal nañ leen ki moy Papa ndjay moy suñu trésorier doomu bay Maguette ndjay bu Ngor peut-être que bay Maguette ndjay ngeen gën a meen ñenn ñi buñ ne Baye Maguette Ndiaye bu Ngor parce que moom itteem yépp mooy na Ngor baax rek donc bu taxawee ci tànk yooyu aussi par exemple wàcc na kële Ablaye Sène moo toogoon nii ak moom Ablaye sen kooku aussi mooy capitaine bi daanaka moo yor équipe opérationnelle bi fii ci terrain bi ñun dañuy toog rek superviser parce que fi mu nekk moom daanaka on est amorti pour ne pas dire que màgget nañu on est assez amorti waaye alhamdulilah rek. parce que comme ni ma ko doon waxee si njëlbeen par exemple léeg-léegi ñii seen i âge sax doo leen ko jox parce que léeg-léegi nit taxaw yaakaar ne moo mag kii fekk ne ne kii màgge naka lu bari mais on n'abandonne pas parce que sëñ Ibrahima loolu la joxo joxoñoon te nee na amul retraite ñun nag dañu bëggee daw fii rek ba am 99 ans rek dal dee yoxoosu ndànk dem fekki bàyyi laay yàlla nañ yàlla defal ñun ñëpp barke bàyyi laay lu ngeen man ren yàlla na ngeen man déwén lu ko yàlla na yàlla jubale leen ak seeni bokk jubale leen it ak seeni dëkk vraiment am nañu fierté lool lool lool lool lool lool lool ci yéen bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Limaam Mahdi ñuy ñaan toogaay bi yàlla na ko yàlla saxal te yàggal ko du guléet du guléet yàgg na ni ko ñi jëkk a wax waxe ngeen fii ñëw ngir yàlla ak Seydina Limaamu ngir yàlla diina ak lislaam bi nu bokk bokk pas-pas ci sunu biiri xol fas googu kan ko faso muy sangub jamono di Seydina Limaamu ak dooma ak doomam ja yonent yàlla Isaa ibnu Mariama ak njaboot gi yëpp kon bu nu toogee ba ngeen delsi fii di defaat seen man-man ci yoonu Seydina Limaamu ah amunu mënunu yàlla moo am te moo man yàlla miy fay yàlla na leen yàlla fay ci kàntanam ci barkeem ci suturaam ci xéewalam kuy jëf ku nekk jëfalal yàlla kuy lebal ku nekk lebalal yàlla parce que moom mooy ki jara lebal lebal boobu kont la rek boo bu ëllëgee fan koy soxlaa boo yewoo mu tàllal la ko te defe naa ni nag dañu nekk ci àdduna doon fee tukki si te ku tukki nag yaakaar ngaa ñibbi fa fa nga jógee woon te àdduna nag dañ fee ñëw rek te wallaay dañuy delloo te digunu dara ci àdduna fële la fële la fële la nu dig ëllëg kon kooku ñu koy ñaanal yàlla moom itam ak njabootam moom Seydina Limaamu yal na yàlla dooli seen leer dooli seen xeewal taasu seen barke moom itam di leen xamal ni kàddu yi may yëkkati rek ci tuuru général bi la di bàyyi njin laay caw di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla bàyyi nu ko fi saxal ko ci sunu kanam yàlla gën a dolli ak wéram roofal nu ko pikiir boo xam ne bu nu sañoon mu bee mu beesaat comme comme Ablaye Sène mu beesaat comme Ablaye Sène seen yéen a boobu rek lanu am ci moom sowxa boobu rek la am ci moom soxlawul leneen la mu way ci baayam boobu ni ko xale yi yaa ngi nii yaanu defar doy na doy na ay wax te wax bu rëy la kooku nag ku ko am muy sa maître ci lépp ah boo dee nit ku am xel foo toog ñaanal ko yàlla ngir yàlla bàyyi bàyyi ko fi waxuma la sax ñaanal gin koy ñaanal la waaye dama ne kudib laa yéen kudib laa yéen kudib laa yéen rek laa wax yaakaar nga Seydina Limaamu gëm nga Seydina Limaamu te gëm yonente yàlla Isaa ak njabootuk Seydina Limaamu saa yoo xëyee foo jullee ñaanal yàlla bàyyi njin xam nga dama dégg benn waykat ci waykati jamono muy wayu zahir xaw ma nu mu ko wayee te pusëb lan <laughs> waaw e, pusëb buy ñaw moo gën lañset bi xuti waaw kon Baye dafa nekk pusa di ñëw ci kër di ñëw ci diine ji ci kër gi ci taalibe yi kooku nag ku ko am danga koy bàyyi xel yàlla guddal aw fanam fi may jeexale ci moom a ah yéen amuñu luñ leen di wax dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën leen a saxal yéen waa kipaar gi ki ngeen di gërëm avant kippaar gi ñun ak moom la woon muy ndeyjoor bi wax dëgg yàlla yow it Baye Mor ca mille ay xale may wax ni tey bu ñu demee laayeen ñu naan ay sopp koor ci diine laayeen ku koy roy ci sëriñ magu nga ko royee ci malika nga nga nga ko roy loo xam ne nii yàlla def nu suturaal ban koy def ci pantre lan daa julli naa fi la ñëw toog di naan suñu ataaya di ciy jàngale comme li ngeen wax rek suñu diine ñuy dem di dugg ci néeg yu mag xajatuñ ci néeg yu mag di dem ci saal ba génn cet yi far nag yàlla def nag fu ñu jëm léegi ci quartier la ñuy dem ci mbedd yi la ñuy génn defe naa ni moom mii macha allah mu ngi woon ci loolu. yéen it ñu ngi leen di ñaanal yàlla kippaar gi yàlla na leen yàlla indiwaat comme ni ngeen ko waxee ba ngeen gën a taxaw parce que mbooloo yi mel nii ku ci def sànniwoo sa alal ku ci def barke alxuraan sànniwoo sa alal li ngeen ci def ba nu jot ko fan la jóge fan la dugg liggéey bi ñuy liggéey. li ngeen fi gis ci tey mbooloo ñun sëñ Ablaye dafa am fu luñ ko wàcceel ci boppam bi muy dund yor appel ci loxoom waxuma bi muy nekk xalifa de mu bi mu nekkul xalifa yor appel ci loxoom yor lépp lépp nekk ci kàddoom lan ko wàcceel dépense te fan yin fi am weer yin fi am ñun ñooy dundal suñu bopp kenn fekk si wunu ku am nag yéene andi ngir Seydina Limaamu xam ni ñii ay jaamen ku ñoo bokk Seydina Limaam gis seen ñax gis seen tilimaa yi ngeen am cofeel boobu yëkkati ñëw joxe seen alal ca fon la jëm ci matériel wala leneen lu manqué ci loo xam lu ci diina jële rek ñoo daa di ko fay defaat dafa naa daa ngeen di jox xaalis dina jox ay matériel mu ngi fi kenn yóbbu ko këram buñ ko soxlaa rek dañ koy génnewaat ngir diina ji kon nag ñu ngi ñaan liggéey boobu ngeen def tuddi seen bopp kippaar gi yàlla na ngeen ko kippaar ci àdduna gi fa nu jëmaat ëllëg ngeen kippaaroo laat ko foofu te mu yàgg nag dund gi yàgg dund gi yàgg àdduna tukkeegul de àdduna tukkeegul de àdduna jeex na àdduna jeexagul ku dem na yow sa àdduna tukki na sa àdduna jeex na yow mën na noo nekk nag ci mujjug jamana mën nañ ci ne waaye àdduna buy tukki demagul de demagul de ku dem nag yow sa àdduna tukki na yow te noonu la ko Seydina Limaamu waxee nan yàlla na nu yàlla xiir ci lu baax yàlla na nu yàlla xiir ci ñuy wax lu baax yàlla na nu yàlla xiir ñuy dox ci lu baax foofu la Seydina Limaamu waxee comme que nag yéen ak njaboon ngeen ci biir gëm Seydina Limaamu fa ngeen nekk uute waaye boole ngeen seen bopp ci tolluwaayu àdduna ci wàllu xam-xam ci logistique ngeen boole seen xel ak seen xalaat ak seen xol mu nekk ci seeni paspas ngir dundal Seydina Limaamu Ndey Joor ak waa ci Kippaar gi yëpp Baye Mor tey damay jël ngërëm li kon. comme que gëj naa laa gis ndeyjoor tey teg ko ci loxoom nga jox ko ndeyjoor ak kippaar gi di leen wax ni yéen waa kippaar gi ñu ngi leen di woowaat ci li ngeen bokkoon delluwaat leen ci Seydina Limaamu Seydina Limaamu mujjug jamono gii ci lañ koy xame de ci la ci la ko àdduna di xame de dafa am rek ku kun fi yàlla bàyyiloon laata muy ñëw ci àdduna juddugul maamam Seydina Limaamu daa ko tudd dafa naa ni sama mag yitoog toog daana dégg ab waykat naan ko Abdullahi ma ci Abdullahi wala boog waxkat ba daan Abdullahi ma ci Abdullahi ya bis bu egsee ñëpp dinañ dégg sama tur man ba ci yàgg mu ni ay bis bu tànk tànkam jotee déglu fas ñëpp dinañ ma xam man Seydina Limaamu ca boobu ndam juddoogul ganeegul àdduna te it lan koy tudde ba naan ko Abdullahi moo ko àndaaleel boppam ci ba muy ba muy judd dafa naa ni turam maam Seydi ka mu yéene woon pour tudde ko ko ba mu ba mu xoolee gis lan muy gis ci ginnaaw ginnaawam lan ni ko Abdullahi waaye kon keneen la ko su maam Seydi doon tudde Abdoulaye mi war na noo doy sunu njiital diine doy na moo nu may li tax nu xam ba moo nu may li tax nu xam ba Abdoulaye Thiaw way ko ndam la Abdoulaye Thiaw yaa xaliili yaa xaliili am na doy na kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yërmande ak leer yàlla na ko fekk ca tànki maam ak loxo mi maamam ak loxo baayam ba yonente yàlla Isaa ak baayam yu baax ya say naama jon say naa maam Ababacar Laay ak njabootu ak lu ga ak jullit yàlla ya leen yaakaaroon ñun ñëpp ca fanu nekk ca ridwaanullaahi yomb na yàlla yàlla na leen ko yàlla defal ndey gëm nanu ñu ngi kon li ngeen nu ñaan ñu waxal leen ko ah yéen waa kippaar gi delluwaat leen déggu leen ci seen biiru kippaar ngeen teewaat seen kippaar liggéeyal Seydina Limaamu liggéeyal seen tey ak seen ëllëg allahuma salli ala Seydina Muhammad jërëjëf laay amiin amiin amiin amiin amiin yaa rabbi amiin amiin amiin amiin آمين آمين يا آمين آمين آمين آمين يا آمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jërëjëf laa waxtaan jërëjëf kontaan nañu baax laa waxtaan